ministère de la santé et de l'action sociale jot na résultat examen virologique yi si juróom-ñeent fukki ak juróom-ñetti test yu ñu def fukk ak benn ñoo si positif muy ñaar yoo xamante ne importé la muy kaabu bu jóg ak juróom-ñett yoo xamante ne ay cas contact yu njoon doon la ak benn boo xamante ne cas communauté mooy cas boo xamante ne xamaguñ fu mu jógee fu mu jëlee jàngoro bi mën nañ wax tam ne tey bésu tey bi juróom-ñaari patient woon wér nañu leen génn tout à l'heure ñu wax ne ñuy hospitalisé centre de santé am na tan bu baax bu ñuy xayma tey boobu ak léegi téeméer ak fanweeri cas la Sénégal compté ak ak su wër bon dëgg wax ne tey am téeméer ak fukk ñaar yu nekk hôpital ñu leen di suivre ministère la santé de l'action sociale mu ngi demandé sénégalaises yi ak sénégalais yépp ñu respecté nga xamante ne jël ci xeexu jàngoro bi